Vatican nga doon ñaan yàlla may la Venise utal ay gaal teg ci kaw ndox mi te ngeen fay wala ngeen joow mu dem da ngeen jaay wuyu yàlla leen gën a bëndi fuuf maanaam ay Vatican Vatican ndox dafay taa yàlla Venise la lay jox Venise xool ba xam yow mën nga ci daraan déet noonu ñaan Vatican fa yàlla jox la Venise utal ay ba utal ay gaal teg ci kawam da jéem a fay wuyu yi ngeen doon ndax askan wi njabar ki yi lu ne ngeen dugg ci fen guddi fen bëccëg ànd ak buur yi àdduna yi di fen rek askan wi tamit dooberaam yoo xam ne duñu yeewu mukk a yéen barki bi yal na fi yàgg te yàgg mooy leen kii lu mu fi gën a yàgg ngeen gën a torox ana ndox mi te moytu leen mu taw suba ah, wala ci guddi gi moytu leen parce que du ngeen yéen du ngeen xool météo du ngeen yéen amu leen xam-xam xanaa màggal goo xam ne du farata kenn santaane ko Sëriñ Tuubaa da wax na ngeen ma sant la moom niwul màggal sant la wax ci li ngeen wax loolu dafa jar ngeen koy def ci diggi ndox nit ñi tëpp tëppi poto poto baak li ci gën a garaaw nag mooy préparer leen choléra choléra gi AVC yi préparer leen de biir bi daw yi AVC yi préparer leen grippe yi yoo yaa ngay naaw fi doon ni bu bu léegi ngeen si yooyu yéen waa Touba yéen nga may dégg seen néeg yaa ngi fes dell ci ay yoo yooyu foo summi sa turki njaareem boo ko wékkee ci portemanteau bi wékkoo ko ci portemanteau ci a konkalu mi yoo nga ko wékk turki turkiñaade yu diisu tilim yooyu ngeen di sol bëccëg bi yëpp tàngoor mu ñàkk tooy xepp ba jàmput gi tak ñàkk ba tilim bu guddee ngeen summi ko nag di fiixlu waaye amul fu leen fiixlu ndax taw ba taw na ba fépp taa bu ngeen ko summee nag yaakaar na ci porte manteau yi ngeen ko wékk porte manteau bu ngeen ko wékk ci kaw bopp yoo ngeen ko teg ndax yooyu ponkal yooyu lekk ceeb ñoom tuuba ndax ndox muy taa defalu leen Touba dara baaxu ci ñaan Touba la deuxième ville du Sénégal Touba sëñ Saliou da koo def nii mbedd yi dafa waaw sëñ Saliou ko dagg bi daf mais ab dëkk du dagg rek toog fi toog dagg ay mbedd dagg ay kër di joxe ay suuf kenn du ko caaxaane suuf du caaxaan di su ko dagg di weddi la mel ne kuy la bang bang suuf bala nga koo dagg da nga koy assainir dugal ci ay tiwa def ci courant ndox lépp loo xam ne day tax nit ñi mën a dund nga ñoox ko ci biir suuf si ba suuf si na jàll tàlli ba nga xam ne du yëngu nga naj ko moom ne kecc nga ci sogo tabax dug dugal ci nit mu dëkk bu fekkee ay nit nga yore boo yore ay bàyyi ma nag moom da ngay dagg di sànni rek mel na kuy maye mbaqus moo tax dana saf sàpp ci yéen parce que du ngeen ay nit wax naa ba tàyyi pour ngeen nekk ay ngeen taxaw lànk na ay doomeraam ngeen bëgg a nekk du ngeen nekk nit waaw ah, ci waxi dof rek bi day sëñ saaliu koy sëñ saaliu def problème yëpp sëriñ saaliu la parce que boo jël tuba dagg ko dagg dagg dagg yokk yokk yokk yokk mais bala nga yokk yokk dafa am nañu yokke ab dëkk boo koy yokk da koy yokk ndànk-ndànk waaye doo toog fi nga toog yor sëb këy dagg di joxe rek kaay dëkk kaay dëkk ñëpp ñëw dëkk ñëpp maam bi ñëw la laaj ci defar defoo ko ci mooy assainissement bu doy tey yéen a koy jooy te ki leen ko teg mooy ki doon dagg ko yokk te Serigne Saliou ci la bokk te kenn du tudd daf ci am responsabilité ma nga ca barsàq yàlla na ko yàlla yërëm mais li leen dal moom da ci am dagg mukk di ko yokk di dagg di joxe ku nekk tabax ku am fuddan tabax ku am ban tabax ku am siman tabax ngeen naan Touba dafa rëy dafa di ko puukarle woon ko Touba gépp billahi wallahi watalahi bu ngeen ko doon jaay ki dërëm dërëm un franc du ma ko jënd nay naa koy def dërëm parce que baaxul du du du dëkk amul valeur suuf si amul valeur rawatina day taa bu ngeen ma ko doon may ci un franc symbolique di ko jaay Touba jëndu ma ko parce que Touba boo kii buñ la ko buñ la ko jaayee ci un franc symbolique di nga ci def mille milliards pour mu baax bu ngeen ma ko doon may Touba dama koy gedd bëgguma ko parce que pour ma defar ko man waxuma yéen ndax yéen du ngeen ay nit man moom damaa xam ak ak bakkan doomu aadama xam lan mooy dund te Touba gi ma gis bu ngeen ma ko mayeen coono lay doon ci man ndax la mu laaj ci alal pour ma dabuwaat erreur yi ngeen fa def ci wàllu urbanisation wàllu assainissement wàllu defaraat ko ba mu mel ne ni Touba biy dundee dëkk Touba bi nooy nepp ndox. yéen Casamance gi dong li muy taw Touba da koy taw Casamance Ziguinchor sama dëkk boobu dong li muy taw Ziguinchor li muy taw Ziguinchor bu ko tawoon Touba yéen xanaa dee ngeen te suñ Touba dëkkul Ziguinchor Touba googu la saamu na Touba ngeen dëkk Touba yéen mun leen a ndox muy mais ko incroyable yéen ay nit ngeen bu yàlla ubbee asamaan si ngeen tëmb di feey bu màggal gi ñëwee ngeen am problème ji ndox ci suuf yalla ci souf lay wàcce ndox mi ndox mi ci kaw mën leen koo dékku jëriñoo ko ndox mi mu dëkkañ ci suuf mën leen koo génn jox ko nit ñi ñu naan amu leen ndox mu ngeen naan mën leen a dékku ndoxum taw mais yéen est-ce que ay nit ngeen lan ngeen di màggal mais yéen dimbali leen ba bon sang dama commencé nag dof ci yéen quoi ñii est-ce que ay nit lañu damay laaj c'est incroyable quand même c'est ubuesque toog nag di photo soo ko de est-ce que yëkki di duula ki bun baali mun takaay ki réew maanaam diinay géwal ay géwal ak ay taggaatagate ay xale yu ponkal yoo xam na seen tuur yaa ngi xasaw ba ñu liggéey topp baali mun takaa góor jigéen yoo xam ne moo góor ñaa ngay jaxasoo toog di duwul di fen saal boo ci dugg ku la fa dàq fen géwal ñu yor kàddu yi fen guddi fen ba cëg ci kaw doon du Sëriñ Tuuba ku ma sa gis lu mel ni mais yéen ay du ngeen ay nit yàgg naa leen ko wax du ngeen ay nit wallahi al azim fi xaju tubaab bi nekk ak fasi tubaab bi yeeg mbaamu tubaab bi moo ma gënal fukk junni yoon tubaab li ci biir ndax foofu tubaab bi dañ ko defar ba mu baax tubaab dafa jox ak ak yelleef lépp luy noyyi yàlla bind ko tubaab da koy jox ak ak yelleefam mais yéen respecté wu leen doomu aadama yéen a bon seen dund gi dee ko gën du dund parce que du ngeen ay nit nekk ci ay ndox bu guddee mbott yi ngoox ngoox ngoox ngoox boo summee sa turki njaareem sa bolok xaftaan boo ko wékkee ci portemanteau bi ci ponkali yooyu lekk ceeb nga koy si bu guddee ñu matt leen paludisme bi yéen ñëpp da ngeen sibru bu ngeen jógee ci màggal bi ku ci ñibbi da nga sibru ñii ay AVC ndax diw gi ngeen lekk tension yi hypertension yi ñii da nga maam choléra gi ndax dugg si Touba da nga ci foos yi dafa wàcc ci ndox di nekk Touba ci ay nit te li ngeen di dem ginnaaw kër yëpp li ngi biir foos yi foos yoo xam bu soree ba bari deux mètres la ndox mi yëpp a ngi dugg ci foos yi génn nekk ci mbedd mi nit ñi di jaar mun taxaa ne woon ne bu fi kenn féyee ko football ak sport xale ne ko yow toppal fële màggat ma ko daal da ñuy fonto ñun ay ndaw lañ ndaw day fo dañuy féy dañuy jàng féy ndax ay booy booy mënuñoo féy te a lépp nooy na wala ñoo dem nag dañuy entraîné wu dégg maam ci dex gii di Tuubaa nga xam ne yàllaa ñu ko indil naan sëñ bi dafa julli ci géej gi ñun dañuy jàng fii ci géej gi laata ñu jël bata yi pour dem comme Bassirou Mbacke ne ku jël bata yi boo ci dee safara nga jëm ma koy laaj ndax ku dee ci yoonu màggal gi safara nga jëm waaw wala déet doom yi xaraam yi doon duuli neen duuli guddi yàlla di leen toroxal guddeeg bëccëg lu ma leen mas a wax gëm ngeen ko gis ngeen ko lu ma leen mas a wax gis ngeen ko lii ma leen di wax ren suba la màggal gi incha allah rabbi bu déwénee léegi na garaaw bu déwénee lay doon Touba parce que duñu ay nit duñu fàggu dara du ñëw ñu lekk comme ay tan ah def nañ ci quarante cinq milliards Touba la fa dugg la Macky Sall def Touba Senghor ba ci Macky Sall kenn mësu ko def Touba Macky Sall mii saay saay bii dañ koy waxal dëgg de Macky Sall mii waaw nit nag da koy waxal dëgg da koy waxal li mu def li Macky Sall dugal ci ay milliards Touba ngir bëgg tuuba baax ñoo Mbàkke Mbàkke yi ñoo ko lekk ba mu jeex takk Choosing the right web hosting is like choosing the right place for your website to live. You can share server space and spread costs with shared hosting, or get the next level space and services of VPS hosting. Or choose EasyWP, our fully managed WordPress package where everything is done for you. You can even have your very own dedicated server. And choosing Namecheap means choosing all this too. Plus amazing prices on every type of web hosting home. Namecheap. Make more online for less. tax Macky du mas a gañu Touba Mountakha ci jiitu mooy chef de gang bi ak Bassirou ki Abdou Samata ki ay ñoom euh, Bas Khadim Awa Ba ki ay ñoom Bali Mountakha ki mooy bandi yooyu mafia boobu nga xam ne ñooy lekk lu dugg Touba xañ ko taalibe Serigne Touba yi ndax lan ñoom ñoo nekk ci kaw ne nangu ak ñoom sëñ Sidi ab Sidi Abdoulaye ki bëndi yooyu ak Abdoulaye ka ñoom ñooy mafia bi matuñu fukki nit ak juróom ñoo toog ci bopp Touba bi la Macky Sall la Macky Macky da leen a jéppi Macky baaxul de la nit ki lu mu bon bon bon bon bon bon da nga koy waxal jëfam Touba moom li leen Macky Sall defal Abdoulaye Wade sax defalu leen ko waaye nag si wul ci askanu Touba moo tax Touba mere Macky Sall seen bandi yi ngeen teg ci kaw te Muntaxa jiite leen ak Basiru Mbàkke Abdou Xaadir porte parole beeg Abdou Samad Mbàkke ak ki nga xam ne mooy sëñ Sidi Mbàkke bandi boobu ak Abdoulahat Kaati ay Xaadim Awa Mbàkke ay bëri Muntaxa yooyu nga bandi caga yooyu ñoo toog ci kaw lu wadd ñu lekk milliards yëpp la ñu lekk toog na sol seen i noir fii ma di ma saf ay yaanay code ay bandi lañu ay cagaake naan ko du sàngara maa ko wax nañ ko weddi suñ ko weddi ma génne seen i vidéo seen i audio léegi doomi xaraam yi doon di leen nax ngeen ne nan dañuy dañuy siyaare ji caga yeeg musiciens yeeg góor jigéen ñëpp ko tubaab ñaan nañ lu ngeen di siyaar ku ngeen di siyaar kan yi ngeen doon bu ngeen dee tàbbi safara yéen a bon yéen a bon nit ñi dañ leen di yërëm di leen xeexal ngir bëgg ngeen baax ngir bëgg ngeen dund ngir bëgg coono wàcc leen mais ay doomeraam ngeen li ngeen mérite rek leen yàlla leen tegal parce que du ngeen ay nit ngeen gëm moo tax leen toroxal guddi ak bëccëg te danay gën metti ci yéen ay doomeraam ngeen kenn dootu leen yërëm parce que du ay nit coono bi nekk Sénégal yëpp yéen a seen bopp yéen topp ay sëriñ rek ay bandi yoo ne naan ay marabu lañ am baati nag ay wàllu ay caga lañ ñoom ngeen bokkaale yàlla tooñ yàlla ngeen di wop di dee du ngeen mën faju amul lu ngeen lek mu bo leen ak bur bu bon bu mel ne Macky Sall mu leen di gundé ak bëccëg leen toroxal parce que baxu leen Sénégal gep jangal jangal jangal dem Touba ko ci ko ci gëna nafiq sa modam ngeen ki kii nak pouvoir comme opposition catégorie yépp ku nekk di wax di sant mu melni réew mi bo leen xolé télé yak image da nga li xana xanaa la manam tout va bien amul lenn lu négatif kenn du ko tudd wax ji ngay dégg wax ju neex la wax ju mbaax la tout va bien dans le meilleur des mondes maanaam Sénégal daal jafe-jafe amu fa nit ñi deewuñu problème politique amu fa problème sous développement amu fo corruption amu fa góor jigéen amu fa ndox maa ngi ball nit ñaa ngi naan di lekk ku bëgg feebar ku feebar yaa ngi faju amul benn jafe-jafe dund bi seerul loyer yi seerul yéen a ngi dem di dikk transport bi amul problème accident yi amul réew mi daal alhamdulilah macha allah waaye yéen ay doom yi ay nafiq yéen a bon du ngeen ay nit. te kenn du ko wax tout va bien kon tout va bien mais yéen a bon yéen ay nafiq yéen ay yéen ay yéen ay yéen ay dooberam yéen yéen yéen a yab yàlla réew mi dara baaxu fi ngeen di màggal ak di fan dem Touba ku nekk di wax naan tout va bien mun na xaar di tufli rek heureusement ba bis boo amoon choléra wala nga am feebar bii li Sénégal géppay wax parce que li ngay xëy di tufli par bis subhanallah tépp tépp tépp ju kenn xamul lu mu doon dafa leen seen ndox moomu fexe leen ba dëkk bi baax bu fekkee am ngeen baati nag ñaan bi ngeen mën a ñaan waaye waaye fexe leen ba nit ñi bi baax fexe leen ba Sénégal suqaliku bu fekkee am ngeen ay baatin amu leen tous ay kat ngeen ay James Bond ngeen yéen ay James Bond waaw groupe Beatles the Beatles ay ñoom Paul McCartney ay ñoom George Harrison takk seen i noir fi ma dóor seen i yàmbaaki ba sax sap toog naan salaam kay moom sëñ bi sëñ bi kay moom man ma ko ma ci saga bu leen ñu léegi le Beatles yéen yéen yéenay groupe Beatles Beatles ay George Harrison ak ay ay John McCartney yéenay Beatles léegi takk ah, amul différence seen bande seen noir fumier yaa ko yi ngeen takk takk ngeen di def toog di fen rek milliard bu Macky Sall dugal ci réew mi Abdoulaye Wade indi ko ci réew mi Senghor Abdou Diouf lu ñu mës a dugal Touba ñoom mbàkke mbàkke yi ñoo toog ca kaw lekk ko nappaajo ay jeeg noppi yéen jaam yi ñu leen ay jaam def leen ay esclave ay lappatu kenn ngi ci ndox mi billahi robinet yi café lay xeel li ko dañuy ñaxtu de waaye gis nga ni ñuy ne ku sëqat ñu dumala toj sa kër génn dëkk bi loolu ngeen ne mooy l'islam ana démocratie am na démocratie waaye nag ndokk baax na ci yéen taalibe yi dooberaan ndax yéen def seen bopp ay taalibe ne jébbal ngeen seen bopp àdduna ak ku jébbal sa bopp àdduna ak àllaaxira looy doyee ndox ku jébbal sa bopp ay bandi àdduna ak àllaaxira looy doyee dégg nga maam uh, looy doyee kër gu amul ndox looy doyee kër gu xam ne yéen seen kër yi bu taayee bu amee pasteeg dayu bëyeeg lu mu ci mënte am yéen amu leen lu ngeen wax nee leen muug te mot amu lu ngeen wax yéen taalibe yi da ngeen a joxe seen bopp ku joxe sa bopp moomu ta sa bopp Basiru Mbàkke Abdu Xaadir fii la ko wax daaw xaw daaw jëg nee na ab taalibe moom bu xasee ba jébalu danaan teg ñu ne ko ah mu ne waaw mu ne moom danaan teg ne néew bu ñuy sang pour waaj koo suul xam nga néew bu dee moom du yëngu saa su yëngoo de ki koy ki koy sang moo ko yëngal Basiru Mbàkke Abdu Xaadir nee na yéen làppato taalibe yi joxe seen bopp jébalu amuleen lu ngeen wax bas bu baree ay kër ki bu ñu sàccee milliards yeeg bas lu mu leen manti wax amuleen lu bas mooy seen yàlla moom lu mu wax ne leen leen jëmee na ngeen fa jëm moog muntaxaay ki ñoom ñi bënd yi ndax yéen joxe seen bopp wax nañ dëgg nag Bassirou joxe seen bopp yéen amuñu lu wax côté boobu ñoom laa àndal mun leen a joxe seen bopp ba noppi nag di ñaxtu naan waaw ah, ceeb bi de saful xorom ndox mi de moom dafa taa suñu yokk suñu bagage yëpp yàqu na a ko teg seen bopp ay yéen yéen a takk buum seen baat def seen bopp ay jaam bisimilaay ñu gëm loo leen na sëñ bi mën na kanamam mën na ginnaawam sëñ sëñ Touba ngeen ne mën na kanam mën na ginnaaw mi ngi suñu kanam bu fekkee sëñ Touba na kanam mi dina leer xaw ma lu man man de lii ma fekke moom fekkuma sëñ Touba man fekkuma ko lii ma fekk ci ginnaaw moom bu fekkee lii la man xel dana tey bu fekkee lii ngeen lii ngeen di dund ngeen ne moom la leen sëñ Touba lii ngeen di dund moom la leen fàggul lii mooy ginnaaw sëñ Touba lii yéen ko wax nag man gëw ma ne sëñ Touba mën na kanam mën na ginnaaw gëw ma ko loolu ay fen la ay dóorukaay la sëñ Tuubaa nekkatu fi yoonam nekkatu seen dund lu ngeen am ci dund bi yéen ko def seen ku ci jógul dang-dang ji doo lekk lu ngeen bëgg ci àdduna bi yéen a koy fàggul seen bopp ci seen xel ak ci seen taxaw temm waaye taxaw di fen nan sëñ bi faggul nañu li sëñ bi sëñ bi nekkatu fi loolu gëwma ko yéen a koy wax kon gëwma seen fen yi waaw man gëwma ne lii sëñ Tuubaa moom la leen fàggul parce que sëñ Tuubaa mënatu leen a dara daan ñaan yàlla rek sëñ Tuubaa waxam yëpp day ñaan kuy ñaan nag mën nañ laa may mën nañ laa bañ a may waaye lii ma gis moom xaw ma lu mu doon waaye la sëñ Touba ñaanoon Touba moom amagu ko sëñ Touba Touba gi mu bëgg Touba gi mu doon ñaan ci xasida bi Touba googu ma amul Touba bi amul ndox mu yéege ci suuf mu ngeen mën a naan mu sell Touba gi bu ndox mi ci asamaan bi wàccee ngeen tëmb yéen ñëpp Touba gi caga yaag góor jigéen ñaag sàcckatu alal yaag ñëpp nga fa Touba gi dégg nga maam dara dara dara dara kon Touba gi sëñ Touba bëggoon ba léegi amul ngeen ne moom dafa mën kanam moom mën ginnaawam ana Touba googu Touba gi mu bëggoon mooy Touba gu sell Touba goo xam ne ay borom yi xam-xam ñoo koy dëkkee ñoo koy jiite Touba goo xam ne ku mel ne Muntaxa mi du ko jiite nga xam ne xamul dara Touba goo xam ne Basiru Mbàkke ak ñi nga xam ne ay suuf na ñuy wala ki jigéen ki xaalis milliard ak ay bas poroxaane ki astafurla bas euh, bas bële xaadim awa baaki ay ñoom Abdou Samad wuyu yoo xam ne ay baali muntaka bandi yoo xam ne bu fekkee ñii ñooy incarné a gi Sëriñ Touba bëggoon muy Touba boo xam ne day nekk dëkku ilm dëkku xam-xam tout dëkk boo xam ne day nekk dëkk boo xam ne ay ay ay nit ñi jub ñoo fi nekk dëkk boo xam na ñoo fa dëkk dañuy sell te sell nag nit mënu koo def ab julit mënut a sell te amul ndox ndox mooy sellal mooy tax nga laab ndox mooy sellal te yéen amuleen ndox mu ngeen yéen ndox mu ngeen naan sax amuleen ko bay jàpp ak sangu amuleen dara lii lépp nag ñoom teguñu leen ko de sëriñ si yi lu leen dal yéen a ko teg seen bopp lu ngeen ñàkk yéen a ko teg seen bopp ndax yéen a judd war nekk ay nit nekk ay dof judd nekk ay nit ñu moom seen bopp ngeen nekk ay jaam takk seen bopp ay buum dem jox ay nit ñoo xam ne tanawuñ leen ay bandi lañu dañ leen di jariñoo sànni ca àll ba ñoom seen kër yi manqué wul ndox tey boo demoon kër Baali Muntaka kër xali nu seen xalif bii dem kër Abdou Samad dem kër Basiru Mbàkke dem kër si sëñ siidi dem kër laatka dem kër dem kër ñoom ñëpp seen kër ya dara manqué wu fa ñoom dara ndox du fa taa dara manqué wu fa ñoom ñi ngi àggina seen àggina joojee ñoom nag seen na gi seen coone yii ñooy xam ba seen kaw diri àggina yee yéen ñi taalibi yéen lu leen dal yéen a lu jik njaag yéen la yéen yéenay njaag yéen kenn waru leen a yërëm ndax yërëmu leen seen bopp nit doo ko yërëm lu jiitu moom mu yërëm boppam te yéen yërëmu leen seen bopp parewu leen pour sipp parewu leen pour jóge ci njaam gi ngeen nekk bu déwénee lay gën a garaaw jël leen samay wax jàllu muus la déwén mooy gën a garaaw ren incha allahu rabbi parce que du soppiku Touba du soppiku duñu soppiku taxaw lànk teg seen système mafia teg ko ci kaw taalibe sëñ Touba yi woo leen ñoom ñëpp ba ñu ñëw dugg Touba ñu këppatal leen dañ leen a nax dañoo teg ay këpp këppatal ay ndëgg sërëx yu bari ne leen ñëw leen ñëw dagg kër joxe ñoom ñëpp ñu ñëw ñu tëj Touba kepp leen ci biir takk ay buum comme gétt ku sëqat ñu duma wala ñu tëj wala ñu toj sa kër génn ci biti kenn du dem dañ leen a ndar kepp këppatal leen kenn du ci takk leen ay buumi jaay ñu dëgër moo tax kenn du leen yërëm jëlul ngeen di def ay vidéo di sànni ci réseau yi jëlul ngeen di woote wàllu jëlul ngeen di gaari waale jëlul ngeen may woo naan fii da lee fi xew fee da lee fi xew ñoo ngi bëgg dee bi léegi ñu ngi li ngay wax billahi Akhenaton li ngay wax dëgg la de waaye lii Akhenaton boo yëgoon lii ngay wax nii ñëpp a ngi koy wax ci dëkk bi Touba ñëpp li ngay wax la ñuy wax waaye mënuñu ko wax ci kaw dañ koy mën mën a ci suuf billahi billahi Touba gépp ñu ngi lay déglu ñëpp a ànd ak yow après bu ngeen may déglu ànd ak man lu muy jëriñ da ngeen a nekk ci kaso kon da ngeen a nekk ci kaso dañ leen a këpputal dañ leen a ndar kepp woo leen ba ngeen ñëw jox leen ay kër gi Touba ku fi ñëw doo fay ndox waaw <laughs> subhanallah yéen ñëpp ngeen lakk seen kër maam yi def ko ak daay yéen ñëpp fàq yéen seen i bagage ila ila Touba parce que Touba ku fa ñëw ñu daggal la nga dëkk ku fa ñëw doo fay ndox loolu moo nekkoon meeb bi dañ leen a du xam nga booy jàpp jën mbaal da ngay meeb meeb gi ñu leen meebee woon mooy noonu dañ leen nax ku fi ñëw da nga am dëkkuwaay dëkkuwaay bi ñu daggal la da nga mam lépp ci sëñ bi doo fay ndox do fay li doo fay laa ñu meeb leen ba ngeen ñew yeen ñep ngeen daal seen dëkk maam yëpp daal daay ngeen daal di maam lakk seen dëkk maam yëpp sàq ya fa nekkoon nag doo dóor yaag dégg maam néegu yax yëpp ngeen lakk ko ne ila tuuba ñu taxaw ubbi rek ngeen ñëw ñu ñu ñu dagg rek di dagg rek naan dëkk baa ngi yokk dëkk bi kay moom macha allah tuuba moom mooy deuxième ville Sénégal tuuba mais yéen amu leen ndox amu leen dara seen dara matul seen lépp cëkk parce que ni ngeen yokkee tuuba mooy erreur ni ngeen daggee kër yi erreur la toppatoo wu leen dèjà ñi njëkk dëkk Touba